alors Oustaz. kii nag ah. moom mu ngi lay nuyu mu ne moom daf doon julli gee alors bi mu tombee ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu ràkk bi mu fàtte ne. mu mhm. fàttaliku ne julli euh, récité wul li nga xamante ne moom mooy fàttiyee mu ne nan la mën a def pour rectifier julli bi Oustaz. mu ne lu mu fàtte dafa julli. dafa julli. deuxième ràkk bi. Ah. mu fàttaliku ne tariwul fàttiyee ci première ràkk bi. te obligatoirement ràkk bu ne moom. julli gee. fàttiyee moo koy moo koy commencé. jërëjëf euh, soxna Kia. pap kii dafa laaj daf ni. effectuer mhm. prière daf ah, doon gée la doon julli daf doon ah. bi mu demee ba ci deuxième rakka bi. Mhm. mu fàtte ni rakk bu njëkk bi jàngu ci woon fatiha. kooku ni muy def mooy ci tàng tàng bi. Mhm. su yëgee ni jàngul woon fatiha ci rakka bu njëkk bi. dafay sànni rakka boobu dootu ko compter. maanaam erreur la. loolu day bo day bokkul ak ay baax daag. xam la non non farata la. Ah. da koo bàyyi ci rakk bu njëkk bi. day sànni rakk boobu dootu ko boole ci julli gi. Hmm. léegi deuxième rakk amoom bi mu nekk mooy première am comprendre dafa dafa def benn rakka. day julli gee. bi mu tollee ci deuxième rakka bi la fàtte faatiya non non ci deuxième rakka bi la fàttaliku ni moom jàngul woon Fatiha ci première ba. waaw léegi bu ko fàttalikoo. Hmm. rakka bu njëkk ba da koy sànni dootu ko compter bokkatul ci julli gi comme amul fatiha. Ah, day mel ni ku recommencer à zéro. kay deuxième boobu mooy lay compter comme un. léegi nag deuxième bii. Uh-huh. mooy doon première am. te du ko li xaamaat ak. non non day continuer. xam nga julli woon na benn rakka. Mm-hmm, mm-hmm. mais rakka bu njëkk bi amul woon fatiha. Mm-hmm. léegi nag da koy sànni. na def ci xelam ne sànni na rakka boobu. mi ngi doog a tàmbali julli gi. mais oustaz pourtant yàlla dafa ñu la lépp. <laughs> diine méttiwul en fait. allahu akbar diine ju jàpp ndal lañ am léegi nag bu jàppee ni rakaa boobu alaaji pap bi nekkoon deuxième bu yàquwul bu julli gi yàquwul woon mhm. boobu ci normalement mooy doon deuxième bi ah. mais comme première bi yàqu na bii première la koy compter d'accord léegi nag bu jullee nag bay waaj a sëlmal ba taaya ba pare. Mhm. dafay sujjóot foofu sujjóot bi ñu tuddee xabla salaam. daal tax ma ne la du ay xabla ak baax da bi may dégg yow nga fenatal sama wax ji xeeb sama xam-xam. yaa ngi bax da ñëw na defe naa. xam la laa ñëw. <laughs> dama la ko laaj laaju fenetal désintéressement intéressé mais yow itam da ngaa da danga da fil sama sama sama sama sama xam-xam. léegi nag. Mhm. foofu lay sujjóot. Mhm. ñaari sujjóot avant muy sëlmal. Mhm. ñaari sujjóot yooyu ñoo tudd xabla salaam. Ah, loolu mooy réparer julli gi moo koy defar obligatoire comme fàtte na faatixa rek ci première mhm. su ko fàttalikoo première ba lay sànni mhm. indiwaat faatixa def ko muy première am mhm. balaa sëlmal mu sujjóot ñaari sujjóot loolu mooy tontu bi mu ngoog donc tontu boobu leer na ci laaj bu njëkk bi euh, Kia ñu dem ci bi ci topp alors El Hadj ñu dem ci deuxième question bi ki nag moom daf ne